secret suratu yaasin bii boo ko sangoo ala kulli xaalin na nga ubbeeku na nga bëri alal say bunte wasak loo tëju tëju dana ubbeeku incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di dokkee di leen jaajëfal ci topp gi ñu topp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala boole ñu defal ñu àdduna ak waaw alaxira ala kulli xaalin seen jataayu asraar ki leen ko defal seen bokk Serigne Mamour Sylla Firdawsi ci jotaay bi di Firdaws Asrar ñu ngi sàkku ñëpp ñu abonné te xam ne xam-xam bu sell rek lañ fi waxtaanee di ko fi jëriñante ak yéen incha allah tey nag ñu ngi leen indil saar bu màgg di soratu yaasin waaye jox lañ ci secret bu màgg a màgg soratu yaasin nag bari gi mu bari ay njariñ itam ñu waxtaan ci tuuti tënk ko incha allah taala waaye jox lañ ci secret boo xam ne yaakaar naa bu dee mës ngeen ko dégg it ñu néew ci yéen ñoo ko mës a dégg incha allah. ba pare tam waxtan ci surtu yaasin bu baax inshallah allah surtu yaasin yi da fay sar wo xamne sar wu bari ay njariñ la da dinañ len ko leral yonente bi deggal nako ko waram xam-xam yi yépp itam deggal nañ ko inshallah dara gën ko gaaw ci ubbeeku ci walu alal ak dindi ab liggey ak cat xalaat kulay masna joxe lu yoon wu dindi cat wu gaaw moy nga xam salam xawlan xawlen xaab ga la ubbi def ci tor boobu ko seetaan gu doon na ko war jëm ko seetaan ndax boobu am solo lool la ci wàllu cat bu cat garaaw garaaw koy dindi incha allah sootu yaasin mbokk yi dafay saar bu màgg boo xam ni yonent bi saxal na ak màggam yonent bi saxal na ak màggam ba na sax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni al alquran xolub alquran mooy sootu yaasin waaw yonent bi ni eh, jëmm ju ne wala mu ne mbir mbir yëpp bépp mbir moo gis bu am na xol te xolub alquran mooy sortu yaasin mooy inna li kulli zayin qalban wa qalba alqurani sortu yaasin mu mbir moo seen rek yonente bi wax mu mbir moo gis am na ab xol alquran nag xolam mooy sortu yaasin kon loolu ala kulli xayin doy na sëkk ci wane màggaayu sortu yaasin moo tax yaasin lépp la man insha allah taala tey dinañ ko leeral te yow mi nga xam ne mën nga ko di ko jàng nga ko di ko jàng daf lay jariñ te it wax nañ ni képp koo xam ne jàng na ko hadis la sax képp koo xam ne jàng na soor yaasin ci guddi yéen ci jéggul yàlla suñ borom doo faral faral bàkkaar yépp yaasin tam moom ay jariñam boo koy wax ala kulli haal na ngay xaw a yéemu bokk na ci ak màggam mooy yow nga xam ne mën koo jàng wala yow mi ko mënta ta sax di ko diglu yi ñaan ñëpp da leen jariñ ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne bayan xiyu moo muy tasfahu li qari'iha mumliyatun wa tastaghfiru li mustami'a tasfahu li qari'iha wa tastaghfiru li mustami'a yoon dami neena suratu yasin da fay ram ki nga xamni moko jang ah, da koy jariñ ba diko ram ñaan moko jang waye ka kay deglu itam da koy jegal wa ah, ma da koy jeglu rek inshallah nga xamni yow mi koy jang euh suratu yasin am na hadis boo xam da ko wax ci lu leer nañ ni kep ku jang sul yaasin bu yomal khiyamé yaasin da ñew nekk sa avocat di la layal ala kulli alin nak nag mu ne tasbaxu maam romb googu ba léegi ci xet avocat rek ba balay tam yow mi xam ni dang koy da am jegul yalla kon suratu yasin njariñ lu mag mag la inshallah ba balay tam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man qaraa suratu yasin فكأنما قرأ القرآن حسر مرات الله أكبر حديث بولير ينتبه من قرأ سورة ياسين فكأنما قرأ فكأنما قرأ القرآن عشر مرات ينتبه ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا كيف وهمني جانغنا سورة ياسين ملنا نكو ne القرآن jàng alquran wàcce kaamil bi fukki yoon moo tax bu ma déggee ñi nga xam ni seen déggin dafa gàtt ku ko jàng eh, am nga limam nangam ci wàcc kaam eh, ci kaamin ñu koy dingat ak yooyu dañoo ñàkk dégg rek ala kulli halin yool ab yool bokkut ndax fi mu toll nii bi yonente bi ne man qaraa suratu yaasin fa ka annama qaraa alquran asra maratin comme yool ba lay wax waaye jàng alquran fukki yoon eh, bu fekkente ni ci la ngay xool ci zahir si rek mën ta yem ak ndax saa yoo ko jàng nga jàngaale yaasin kon nag nga xam benn yaasin nga jàng mel yoon sax fukki yoon kaamil kaamil alxuraan kon lii mbokk yi eh, kon sooratu Yaasin day wane ak màggaayam ak itam lii itam war naa wane mboolem ñoo xam ne seen déggin dafa gàtt ci diine ñuy di nga takk téere ak itam di di nga saafara ñooñu dégginu gàtt lañ am ci diine ala kulli haalin kon diine eh, dafa soxla nit ki am dégginu yaatu lool ala kulli haalin ni yonent bi kon lii rek wane na ni mag màggug sooratu Yaasin benn saar nga jàng ko benn yoon waxut fukki yoon nga jàng ko benn yoon waaye am mel ni taxaw taxawaay mel ni ku jàng fukki yoon alquran wàcc kamil fukki yoon ala kulli haalin kon moo tax ku xëy ku ne na nga ko jàng kuy gont itam jàng ko ala kulli haalin ma leen koy digal de loolu yasin mooy waaje de allahu akbar ba ma ñëw ci secret bi ma leen jox léegi nag euh, yasin nag mag gi mag ak li ma wax ni yëpp ak yi nga xam ne waxuma ko te bu ma ko bëggee wax Eh, eh, benn ben bi yonent bi tënk benn hadis muy lima quriat <laughs> allahu akbar yonent bi nee na yaasin lima quriat ci loo ko jàng rek lépp loo ci loo ko jàng ngir loolu suñ borom defal loolu soo ko jàngee ngir ubbeeko suñ borom ak ubbeeko soo ko jàngee ngir kaaraange suñ borom may la kaaraange soo ko jàngee ngir ngir falu suñ borom far la yonent bi moon lima quriat mooy suratu yaasin kon lépp loo ko jàng rek suñ borom defal loolu moo tax nit di aaju yoo mën a am bul jaaxle benn yoon li fekk yaa ngi man alquran dama nga jàng suratu yaasin te yéene ci lool allahu akbar yaasin li ma quriat ay jàng nga teewlu ko te ko insha allahu taala yonente bi nee yaasin mooy li ma quriat kon insha allah la nga ci bëgg suñu borom dana ko defal kon wax yonente bi nag moo kawee jëpp wax insha allah yaasin nag am gu am jariñ tax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee su ma su ma sañoon de sama xel wi yëpp ay mokal suratu yaasin nga xam ne xool boo ci ubbi rek danga jay fekk suratu yaasin ñëpp man ko kon yow mi nga xam ne mënoo ko woon lank làkk woo ko mën a jàng rek jim koo jàng mën ko ndax njariñ yi nag dafa bari na la waditu annaha fi qalbi kulli insaanin min ummati yonent bi nee na maanaam bu sañoon maam xoli xole xolam xoli doomu aadama yëpp ci xeetam dañuy mën sortu yaasin la ku laal ndax am am njariñ gum am jariñ moom sortu yaasin te itam am gi am njariñ nag bokk na ci li muy wane mooy dafay jariñ nit ki bu dund waaye daf koy jariñ bu dee mboolem nit ñi xam nañ ni nit ki bu fi faa bu faatoo ba jóge fi dañ koy jàngal sortu yaasin allahu akbar kon loolu moo lay wan Eh, eh, yaasin am doole tax sax loolu yonente bee ko diglu ndax yonente bee ko digle ndax yonente moo ne iqra'u ala mawtaakum suratu yaasin yonente moo ne jàngal leen seeni néew suratu yaasin allahu akbar iqra'u ala mawtaakum suratu yaasin kon lii dafay wane ne suratu yaasin am na njariñ lool lool foo ko waaye takk rek weesu na foofu moom suratu yaasin kon lii lu am njariñ la ñu ñëw nag ci leeral leen sëru bu màgg bi ndax jotaay baa ngi gudd waaye lépp nag waxtaane njariñ suratu yaasin rek ko waral yaasin mii mi nekk ci suratu yaasin boo ko xon boo ko xoolee adadu euh, adadu miim yi daf lay jox trois cent six tolloog tur bi ñuy wax xëru trois cent six miim moo nekk ci suratu yaasin boo ko wàññee incha allah miim yooyu yëpp nag dangay ngay bind suratu yaasin nga ubbi miim yëpp waaw da bind nag ñetti suratu yaasin ndax miim yooyu may wax moo jàpp trois cent six tolloog xëru waaye am na ñetti tur yàlla yoo xam ne moo tolloo ak miim yooyu allahu akbar muy ñetti tur yàlla mooy allahu kaafi latifu allahu kaafi latifu mboolem mbokk yi loolu ku ko adat ku ne adat ba ngay am mooy trois cent six allahu cent six la kaafi cent onze la latifu cent vingt neuf soo ko boolee ala kulli xayin daf la jox trois cent six kon moo tolloo ak mim yooyu tolloo ak xaxaru ñetti yoon yi ngay bind sol yaasin euh, yaasin bu njëkk ba mimi yaa ngi ci dugal allahu yaasin bu ñaareel ba mimi nga dugal ci kaafi yaasin bu ñetteel ba mimi nga dugal ci latifu yooyu mooy ñetti yaasin yi nga xam ne Eh, bu ci ne da nga ci dugal benn tur bi ko ñeenteel nag nga bitaat beneen bi ko ñeenteel nga xam ne nga ci dugal xëru mooy tur yàlla bi incha allahu taala su ko defee nag lii moom ngay boole def ko saafara di ko sangoo ci diiru eh, eh, juróom-ñaari fan bis bu ne boo xëyee suba gi nga jàng suratu yaasin daal di sikkar allahu kaafi latifu 306 bu ngoonee nga jàngaat suratu yaasin daal di sikkar allahu Kafi latifu del astaghfirullah bu ngone bo jàngi sur yasin yaa ci kar yaa qaharu 306 mbokk yi lii mooy sirru bi lii kep ko def inshallah allah inshallah allah taala sangole ba pare wëlbatiku uh, di jang sur yasin ni ñu lako waxe inshallah allah kenn mun laa ubbe ko kenn mun laa te am alal lii secret bu mag mag la bo xamni ne kare. bu la ci alquran karim man leen koy lay ñep inshallah allah taala Mounatarul Yaasin nag ku ne xam na ne ci yéen saar bu am njariñ la lool naa ci yeneen secret yoo xam ne maa ngi leen jox dig daje di wax boo xoolee miim yi juróom-ñaari mubbin yi juróom la boo xoolee ci anam gii ma jàngale muy anam gi nga xam ne dafay génne ci 306 bi am na ñetti miim xam joxe naa ñetti turu yàlla yoo xam ne mooy Allahu ak Kaafi Allahu ak Kaafi ak Latifu ñetti turu yàlla yoo wax na ne moo jàpp 306 bu day mubin nak ñu amna ñetti mubin ci alquran ci sortu yasin yo xamne mo mooy ak 306 ñetti mubin sax mubin gune 102 la mais bo jëlé 102 102 boko jëlé nga dar bu ko ci 3 daf lay jox 306 kon ñetti mubinu mo tolloo ak 306 waye nak secret dafa nëbbu ci yasin amna fi ñetti mubin yo xamne bu ci ne laam da ko jitu bu ci ne laam da ka jitu mubin doog a ñëw maanaam laam dafa jitu mubin gi ñett loolu ñett rek ñett rek la ci surat yaasin bu njëkk mooy wa maa alayna illa al balaaqul mubin illa al balaaqul mubin mubin googu miim nga laataa moo ñëw laam alif moo ñëw laam doog a ñëw mubin googu dafa am alif ak laam léegi eh, geneen bi de inni isal la fi dalaalim mubin laam boobu moo ñëwaat beneen ba de inantumu ilaa fi dalaalim mubin ñetti miim yooyu ci surat yaasin moo ñetti mi yi nga xam ne laam a ñëw jiitu ko la nga xam ne bu laam bu laam gee tànkam rek mi may teg tànkam nga xam ne laam nga dafay sës ca mim nga wala uh, nga xam ne xarfu laam nga rek miim nga moo ca topp te loolu nag dafay lu mystique allahu akbar ndax xam ngeen lu tax may dafay mystique mu biin wax naa leen sanadar la laam ñaata la laam laam 30 la boo jëlee 30 teg ko ci sanadar yi da ngay am looy am qalbu kon suratu yaasin mooy xalbul qur'an li yonente bi wax dëgg-dëgg xam-xam moo koy génne allahu akbar kon suratu yaasin fii lañuy wane ni secret bi mooy xalb mooy xalbul qur'an moo yonente bi li ma quri'at loo ci jàng suñu borom defal la loo ci jàng rek mën na ko kon dëgg-dëgg secret xam-xam dañ koy gëstu jàngi ko am ko incha allah lii ma wax ni wóor na ma ni nit mësu koo dégg ci koy wax yàlla xam na ko dafa am loo xam ni booy góorgóorlu di di sellal dafa am loo xam suñ borom moo lay dimbali xamal la ko allahu akbar alquran <laughs> allahu akbar xaaral ma wàcc fii kàddu gi sax balaa may xaw a kii <laughs> mbokk yi kon ñu ngi leen ñaanal jàmm ak tawfiq di ko sàkku ci yéen jërë ngeen def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh